mooy sëriñ Omar Teye mi ngi ni toog mooy sëriñ mi ngi ni toog mooy mi ngi ni toog bi nag yu wana moo ci suba démb yónnee sëriñ Talla mii ndax lu may def loolu ne day am seede sëriñ Talla lay yónnee ci man na ma kaay wuñu wala moom mu ñëw ne ma sëriñ bi nee na na yéene ni ko kilifaam yi daa defee ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi ak liggéeyub Sëriñ Amat bi sunu weesoo fan yi ñu toll dootu yàgg nag dana tàmbali Sëriñ Omar ñaari liggéey bi gën a jëm te ndigal yëpp daje ca mooy kër ga ca Tuubaa fa ñuy màggale kon dañ ko war a daal di waajal balaa weer ba ñaari weer jumtukaay ya mën a mat mën a dajee ndax ñu fay dem mën a am fu ñu suturloo sëriñ bi nee na mu tàllal loxo képp koo xam ne danga naan sëriñ Omar mooy sama wasila di beral loxo nag ak sart bunti kër sëriñ Omar yi bunti kër sëriñ Omar yi ñoo ci ëpp responsabilité waaye ba ñu taalibe boo xam ne mën ngaa jaayante la sab sëriñ di def ga jox ko sa walu borom jaayante na dina ko defal ñu lay xaar ñu ngi lay kon serigne bi jox na digal serigne cheikh ngabu mu jox ma digal ne naay ubi kaddu gogo kër gi ci touba mo jitu këra gi fi bo xana barki dembu ci tewuk sey ñaar ñent weer la fi am ba juroom ben weer fédération Serigne Omar gëndal nañ ko Serigne Omar ci ñeenti million te moom mii nee na benn liggéey taxaw ci kër gi ci Touba ak kër gi ci Mbàkke la bëgg mu doon benn départ waaye kër gi ci Touba nag la jiital kon sëriñ bi yal na yàgg a digle ñu di ko dégg te man koo jëfee man koy jëfe nag sëriñ bi waaye sëriñ Omar yal nañu ko sëriñ ñàkk ak mettit ak bekkoor ak mbas mi ñu ngi ñaan ci sëriñ Omar nga ñaan loolu jóg fi ñàkk ak mettit ak bekkoor ak mbas mi ñu ngi ñaan ci jëmmi sëriñ Omar nga ñaan ko ko yow mi nga xam ne yaa yor la mi ñam yor kàddoom nga ñaan ko ci barke ki fi nekkal sëñ Touba ak sa barke jawriñ ji Moustapha Malick loolu jóg fi Aliou Diop Aliou Diop fi Aliou ci liggéey yëpp sëriñ Omar Bis sëriñ Malick bëgg a tàmbali te sëriñ Cheikh Ngabou di sëriñ Cheikh Ngabou di jawriñ su fekkee soññee bi laaj na yenn kàddu lu ci tawul jox naa la ndigal waaye nag maa ngi jéggalu te balaax ñëpp balaax ñëpp sëñ bi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Malick ci ndigalu Serigne Cheikh Ngabou mi nga xam ne yaa ko xool ba doyloo ko def ko mu doon si jëwriñ ci liggéey bii nga xam ne moom la seqe yow ci biir kër Serigne Omar waaye laataa loolu Serigne bi mi ngi lay xamal ne la Serigne safaa nam fi nekke woon nga xam ne daal di jëloon léppam jox ko ñi nga xam ne ay magam te jiitu woon ko ci liggéey bii nga xam ne luñ ko mas a sant rek def na ko nee na mi ngi feddali kóllëre googu ak jaayante googu ci sa jëmm te di la xamal ne yaay magam yaay xaritam yaa di ab sëriñam ndigal lii nga ko jox nag ngir tàmbali ab liggéey ci biir kër sëriñ Omar nee na sedd na xolam lool te yaakaaram it gën naa dëgër waaye olof Njaay dafa wax ne jëwriñu gaynde bu jiite woon ay bukki ñu jëf jëf gaynde kon mi ngi ñaan mbooleem jaboot sëriñ Omar gi ci lii nga xam ne ab liggéey la te sëriñ bi jaare ko ci loxoom kon nañu xam ne la mag ñi bàyyi woon jógu fi ndax sëñ Seex Mbàkke sëñ Maxtaar la demoon jëwriñam kenn ku ne gis na ab taxawaayam ci biir kër gi sëriñ Seex Ngaabu mii nag mi ngi sàkku ñaan ci mboolem njabootu Seex Umar gi liggéey bii ko sëñ bi liggéeyloo nee na ngeen ñaanal ko sëriñ Maalik mu ko sant yàlla dëpp ko kattan ak wér ba mu mën koo liggéeyal ñaari kër yi ba ne ko caabi jaa ngi nii kon nag mi ngi ciy soññ mboolem koo xam ne bokk na ak yow sëriñ kon nag mbokk yi nelaw jeex na noppalu jeex na ndax kenn ku ci ne boo sañoon sëb sëriñ liggéey loolu te sëriñ Malick mooy sëriñ Omar santaane na ab liggéey dégg ngeen ni ko sëñ Xalifa waxee këruk Tuubaa gi ci ñaari ak weer yi ñu jëm mooy prioritaire ci fii ñu toll kon nañu xam ne ak kër moom ku koy liggéey ay millions yu bari moo ci war a dem kon képp ku yaakaar sëñ Omar ak foo mën a ne ci biir réew mi rawatina fédération bii nga xam ne biir réew ak bitim réew ak mboolem mag yi nga xam ne danoo àndoon ak sëriñ Omar te daan jël seenu ñaq di ko def ci liggéey bi seen Senga bu nee mi ngi leen di fàttali liggéey boobu liggéey boobu nag buñ ci àggee bisimilah nee na liggéey bi nag buñ ci àggee Serigne bi dana woo sëñ xalifa ñu waxtaan seet kenn ku ci ne la cay sa wàll insa allah sëñ bi dana woote waat ñu dajawaat kenn ku ci ne la nga xam ne moom moo ci sa wàll ñu xam ne lii moo ci sa wàll waaye dama leen a bëgg a xamal ne liggéeyu kër kenn ku ci ne jàpp ne taxawaayu jumaa la ndax jumaa jii de bañ koy liggéey Serigne Cheikh Mbacke ci téeméeri junni la ko tàmbalee kon nañu xam ne amatuñu nelaw amatuñu lenn lu ñu war def lu dul fàttaliku li nga xam ne moom la fi sëñ Omar bàyyi woon mbokk mbokk yi nañu jaayaat suñu sëñ Omar suñu bopp nañu delloowaat njukkal seen Omar suñu bopp te xam ne kenn ku ci ne ci ñun nii foofu mën a dem ci barab ñu di la màggal baat ñu ne la siyaar jëmmi sëñ Omar jee tax kon nañ ko delloo njukkal ngir yàlla ji yéen suñu bàyyi jërë ngeen jëf wàcc ngeen waaye yéen gone yi ma maaseel jamono te bokk bokk bokk pas-pas kon sëriñ bi nee na mi ngi leen wax ne ab liggéeyee ngi bi xam ne képp ku ci feeñ dootoo nëbbu ci barkeb sëriñ Omar kon loolu la sëñ bi waxoon nañ leen ko jottali waaye nee na mi ngi ñaan ci barkeb Cheikh Omar barkeb kilifaam gii ci sëñ Malick képp koo xam ne feeñ nga ci ñaari kër yii xam ne sëñ moom lay liggéey yàlla na nga feeñ ci àdduna ba dootoo nëbbu ci barkeb Cheikh Khadim kon nag ndigal lañ doon xaar ndigal laa ngi nañu ubbi suñuy xol ubbi suñuy bët te xam ne ki niy liggéeyloo mooy sëñ Omar kon loolu daal laa xam ne moom laa ci dolli fédération bi waaj leen njaboot sëñ Omar gi na ngeen waaj mbooleem mag ñi àndoon ak Omar na ngeen waaj te xam ne sëñ bi santaane na santaane bi nag weesuwul liggéeyal sëñ Omar ñaari kër yi nga xam ne moo nekk ci Touba di di ci woon ak ñëpp waaye di sàkku ñaan ci mbooleem ñi fi nekk ci sëñ Cheikh Daabu mii nga xam ne mooy jëwriñ sëñ Omar bi ngeen ñaanalal ko yàlla féqal ñu aw fanam liggéey bii ko sëñ bi sas mu liggéey ko ba mu àgg àndaat ak yeneen i naal yu bokkut ak yi ci barkeb Sëñ Omar penc mi nag pencum ñaan la pencum ñaan la te ñaan du fi delloo kon yéen rakam yi yéen taalibe yi maa ngi sàkku ci kenn ku ci na wax sëñ Séngaa bu yàlla na yàgg te wér seriñ Malick yàlla na fi yàgg te wér liggéey bii ko sëñ sëñ Omar di liggéeyloo yàlla na dem ba tëj ñaari kër yëpp jébbal ko caabi ji ñu ànd ko moom ci barkeb sëñ Touba waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon dañuy ñaan ngeen ñaanal nu fi ñu ko bëgg yóbbu nu yóbbu ko fa bi loolu jàllee fédération bi nga xam ne bi ne seen Cheikh fii ci Sénégal ak Serigne Khadim mi nga xam ne ma nga ca bitim réew fas yéene noo joxe 500000 ci liggéey Serigne Omar bi tàmbalee ko ñu leen di ñaanal ngeen ñaanal nu lu ngeen ci bëgg ngeen ñaanal mu yomb na ban def ko nun ko bëggee wa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala